في القلب في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون waaw ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñuy wax jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba di wax jërëjëf Cheikh Ahmadou Karam Mbacké Noreyni ñu ñaan Azam Ndiaye Ousmane moom mi nga xam ne mooy suñu kilifa di suñu waajur suñu borom taas ñu ci ay barkeem kattanal ñu ba fa mu tegoon tànkam ñu bañ faa teggi suñu yos ndax ñun lottu nañu lool ci ñaanal ko waaye ñeme nañoo nag ñaan suñu borom mu taas ñu ci barkeem daal waaw ginnaaw bi loolu nag ngeen gisee ni mu demee ni mu demee noonu tey dafa di loo xam ne moom da ko liggéey ndax addunaam gépp da ko dox ci ak taalibe ndax lu la taalibe mayul biir kër Serigne Touba rek wax dëgg yàlla leneen mënu la ko fee may tànkam yëpp mu tegoon ko ci loolu ci siraatal waaye tamit wëlbatiku yar ci njabootam muy man muy samay rak muy góor muy jigéen ñëpp ci taalibe la leen yar ndax taalibe moom mooy li nga xamante ne mooy clé bi ubbi buntu kër Serigne Touba boo ko fi jëm ta am rek booye boo loo mënoon a jàpp na ko ba te xam ne loolu moom mënoo ko fi am loolu daal mooy li nga xamante ne nii wax dëgg yàlla bu dee luñ mën a seede la suñu diggante ak moom mooy loolu taalibe googu jësun moom dafa nekk kuréel ga nga xamante ne jëmmi Cheikh Ahmadou Kara moo ko taxawal te ko ci waa ñu nekk mbooloo ma nga xamante ne nii maanaam ci ndigaluk Cheikh Ahmadou Kara nore Noreyni ci la ñuy dox maanaam liyoom rek la ñuy déglu ginnaaw liyoom ñoom amuñu leneen du ñuy déglu doon tamit ay taalibe ndigal doon ay soldaaru ndigal ndigal amul ëpp amul yées waaw ndax caabi la bu ëppee du ubbi bu yéexee du tijji waaw kon ñoom ci ndigal la ñu nekk te ci la ñuy nekk ba pour l'éternité ndax dañu bokk ci ña nga xamante ne Cheikh Ahmadou Kara xamal nañu ne ci tànneefu tànneef yi lañ leen tànnee benn par benn ba muy mbooloo moomu mu jël ko teg ko ci loxoom te moom moo waxoon sëñ Ousmane ne ko mbooloo mi nga xam ne yow yaa leen di jiite buñ ci tolloo man maa koy tànnal sama bopp kon loolu def na ko loolu mooy mbooloo mi nga xam ne moo di Dieysun 313. waaw organisation bi moom fi ñu toll nii dañoo am ndigal lu joge ci suñ yaakaar tey ak ëllëg muy Cheikh Ahmadou Karam Mbacké Noreyni mu xamal ñu ne lépp la nga xamante ne ndigal la gu daan joge ci moom di ñëw ci agent Ndiaye Ousmane yeesal nañ ko ci joriñ Serigne Saliou ndigal li ci moom lay jóge di tàbbi ci mbooloo mi ñun ñëpp na nga xam ne fi ñu toll nii ku yoroon benn laxasaay na nga wut juróom-ñeent boole ko ak bugoon benn boobu muy fukk nga takkaat sa laxasaay te xam ne waar wi mi ngi soog a tàmbali ndax sëñ Ousmane li gënoon a métti ci waar wi ko defal kon lii ci des nii maanaam luñ ci teg rek day daal di yegg fa nga xamante ne foofu la ko bëggoon loolu moom mooy li nga xamante ne wax dëgg yàlla mun cee ñàkk waaw li tàggatoo nag mooy xanaa di wax alhamdulilahi rabbil alamin ndax suñ borom moom lu mu dogal ci jaam rek wax dëgg yàlla dañuy daal di neex ndax maam Thierno Birahim moo ñu nampatal ci loolu bu dee dëj alhamdulilahi rabil alamin bu dee tudd alhamdulilahi rabil alamin comme tey nag dafa fekk muy nuru naqar waaye doonu ko ndax moom yàlla du ko teg lu ko soobut waaw yàlla du teg euh, ku koy liggéeyal loo xam ne day metti ci moom xëy na nag ñun ñi mu fi bàyyi léegi day nuru wéetaay waaye ci ak yaqin gu wér rek dañoo xamante ne du naqar du naqar dafa am lu ñu naral rek moo tax moom mu jituñu ngir ñu nit ñu war ko mën a fekki ndax dem te ñuy ñëw dong la waaw alhamdulilahi rabbil alamin sant yàlla bu baax baax di wax jërëjëf Cheikh Ahmadou Karam Mbacké Noreyni di wax jërëjëf Lakki Agent Ndiaye Ousmane. walaay ku baax ku uuf ñëpp ku defar ba mu baax macha allah muy suñu rakk ju baax nag gëm Cheikh Modou Kara ba mu jeex Cheikh Modou Kara it desalu ko dara seet si na ko sagal na ko ay doom noonu gis nga ñu fi génn léegi macha allah ñëpp ci waa këram lañu waaw ñu leen di gërëm daal di sant jëri na uufoon na ñëpp uuf na mag uuf na rak wax na jarbaat macha allah def na fi lépp soxna Dieng Mbacke def na fi lépp macha allah waxtaan bi rafet na wax dëgg bu bëggoon nag bëggoon ñu nag man man magam laa ñoo bokk benn baay waaye dafa mel ne maa moom ñoo bokk ndey ak baay allah bëgg ma bëgg sama njaboot gi bëgg jibi mii macha allah bëgg léppam waaw jibi tam baax lool ci moom waaw fonk nijaayam bëgg nijaayam macha allah waaye jëri moom kenn mënu koo fay. li Kara Mbacké wax démb ci moom rek moo nekk waaw buñ ci leer daal fi mu ne daal dañ ko ñee waaye buñ ko jooy waaw macha allah waaw jërëjëf. waaw salaamaaleykum wa rahmatulah euh, Ousmane daal li ñu mën a wax ci moom mooy euh, nit ku exceptionnel la ndax diiru ma xam ko ci kër gi ba tey jikkoom gisuma ku mel ni jikko boobu ndax dal na yaru na taalibe nag. doon nag jaamukat yàlla te ko am kilifa loon eh, doon na amoon na benn discrétion bi nekkoon ci moom loo leen seq bu ko nit ñi yëgee yaa loo soxla ci moom mën na jóg doxee ko ba mu sotti d'une façon effacée mësta nangu sax doon jëwriñ moom dafa jàppoon ne rek ab jaamu yàlla la bu ñu jaamuloo ci jaamu yàlla yi rek eh, jikko moom macha allah taalibe exceptionnel la woon nag. nanguloon na la Cheikh Modou Kara lu benn taalibe nangul mësuta werante ndigal te mësuta it bañ matal ndigal ndigal lu mës ex ci moom rek matal na ko ñi mu bokkaloon daara ji kenn ku ci nekk loo moo moom ci moom rek jox nañu ko maam jikkoom daal macha allah euh, ñun gëm nañ ne dina day ak Serigne Touba. xam nga mooy sun dèjà mooy 313 yi àndaloon ak yonente dem Badar kon bu ñu créé kuréel boobu tuddee ko jëy ndax lu nekk day nuru Euh, boroom waa Jeysun ñoo ñoo àndoon ak yonent kon bu sëñ bi créé kuréel boobu tudde ko Jeysun ba pare moom ñu jiital ko ko kon ci kaw ma tax te kuréel boobu nag loo fi gis ci kër gi ci lu sotti rek ñoo ñoo ko liggéey waxtu wi la daan dox xar yi jëm ci sëñ bi yi bi jox waa kër ak doomi borom daar yi waxtu wii la ko daan lijjanti waxtu wi daana fekk lu mu gàtt gàtt mu yab ay camion ngi xar yët ko sëñ bi kon Euh, liggéeyam euh, moom euh, macha allah daal ñuy wax ne daal wàcc na daal wàcc na Ousmane daal wàcc na. في القلب في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون